njaaloo lay indi. c'est vrai waaw kon d'accord nga man que ni boo amee borom kër da nga war a changer numéro. kon les femmes mariées yi nga xam ne yéen ñu suivre. Uh-huh. <laughs> dañ ñàkk ñi nga xam dañ ma pointé du doigt dañ ñàkk ñu xam aussi tam ne pointé du doigt Sister Adams ah. ah man kay xam naa mais on est juste là pour causer avec uh-huh. nos amis et les uh-huh. internautes. dañuy trouver solution rek. voilà on va essayer de trouver la solution. tu vois adéquate par rapport à ce thème là. des des vidéos pornographiques genre demee noonu. wala ak mi ngi noonu affaire ça tamit. Ah, dañu wax bu fekkee yow am nga jëkkër. war nga mën a xam ni ngay comporté kon réew mi toll na foofu.

képp koo xam ne si bi yaa ngi ñuy suivre ah wala ku ñu suivre wala ki doog ko jot ci vidéo bi bul fàttee abonné activer cloche de notification pour bañ a raté yeneen ci vidéo yi waaye loolu boo ko defee ba noppi bul fàttee commenter wala like daal di partager ñenn ñi daal di si jot vous qui êtes au niveau de la diaspora petit être na si kaw xel baa nga ci mention spéciale à vous waaye tamit si Adam sama daal lay bàyyi nga nuyoog ñi nga xam ne si bi ñoom mbokk internet yi ah John fay naa la mais est-ce que xam nga sa sañ baax na ma saa su nekk nag dangaa xam classe non dama ko mën xam nga ki mën a kii jëm bokkul waaye dama ko mën. ah mais yàlla na baax na nag wóor na saa waay. non si si baax na trop. <laughs> merci beaucoup Sister Adams si kenn du yow. mooy mbokk yi salaamaaleykum waa diaspora salaamaaleykum mbokki Sénégal di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax euh, aussi tamit pour gars yi di abonné. d'accord surtout loolu. nañu abonné Kër gi Sanel mm-hmm. ñu ngi wàcc ay affaires yu bari. yu garaaw. gars yi nañu def bii. di sam pap naan mbir la c'est du mbir ah mbir la. C'est affaire yu te chaque jour ay surtout parce que y a des personnes qui m'interpellent interpellé ne ma Je parce que je ne la pas si day ko ñun ak ko mën. bokul te yalla dafa def la def tamit. dañ ko mën di remercier tamit DG bu baax. lépp affaire yi de. la mais dafa mm. merci beaucoup <laughs> sister Adams. Anas bu mu sama émission. non man kay yàquma si émission sama waay la donc tey thème bi nga xam ne si biir ñu ngi war a waxtaan si anam si la fois passée waxtaan mhm. nañ thème yi nga xam ne si biir bari na. intéressant gis nga gars commentaire aussi. surtout loolu. franchement dekk na lu ma gën a marqué parce que maa gis benn commentaire boo xam ne si biir mi ngi mën a na joon na. Euh,

waaw di gis ñu ne déet déet nee nga waaw ba pare <laughs> si waaw man dinaa ñëw ci déet gi léegi waaw bi nga xam ne si biir moom la Sister Adams wax dañ koy bàyyi mu développé Sister Adams indi sa mais àdduna ñun yàlla daf ñoo bind tamit ay doomu aadama lañu ci jigéen bu am borom kër mais si d'accord mais bu fekkee borom këram tamit nangu na parce que damay ñëw si sens boobu mm-hmm. mais parfois ni da ngay am say càmm ñoo xamante ñoo la bëggal naturel ñoo la bëgg seen bopp lépp dañ ko teg si fulla ak fayda. d'accord surtout loolu. ci fulla ak ci fayda fayda. nga teg ko si fulla teg ko si fayda bañ a topp si caaxaan quoi. d'accord donc bi nga ni si. d'accord naa mhm. Mhm. d'accord nga ci kaw. maanaam nga mhm. teg ko ci fulla. fulla ak fayda ak maanaam xam ni ngay waxee ak ñoom yan terme nga war a utiliser. utiliser surtout ak fan nga yemoo moom ci kaf. y a des surtout loolu donc da ngay da nga ne waaw. Mhm. ba pare indi ay limite yi nga xam si mhm. moom lay àndal. si sa anam dinaa si d' accord ak yow tuuti mais maa ngi ñëw encore ci beneen fànn parce que nit ñi dañoo bari te wuute. Mhm. donc ñi nga xam ne si bi dañuy d' accord xaritoo jigéen bi nga xam ne am na borom kër. minante gi mën na nekk mën nañu ma yarandoo màggandoo. d' accord léegi limite bi nga xam ne si bi moom nga posé est ce que foofu dina fa mën a nekk. surtout. surtout si ñaar ñu yabante est-ce dina mën nekk limite. non dama naan parfois nag euh, mën na dem ba affaire bi jéggi dayoo. parce ah, que mu ëpp dem ba ëpp doole. mais soit qu'importe dama naan nit ki da nga marié. da nga am jëkkër. xamoo li ngay comporté woo. surtout loolu. maanaam ci xam li ngay def aussi parce que lépp si xel la. dëgg la ci côté solin ci côté doxalin ci côté waxin. lépp. mais loolu je pense que tey benn côté parents yi dinañ ci indi approche maanaam tey dinañ xam ne ñuy yebee seen i doom moo tax ñu war a ñu naan yëpp nit dafa am noo koy yebee ci muy mhm. dem te sëy dafa nekk lu discret sëy boo xasee ba dugg pour man waru nekk loo xamante ne dangay dem rek yër mhm. génnaat si non d' accord léegi ñu ñëwaat ba tey ci li nga xam ne si bi mooy xarit yu góor ñi. Mhm. comme tey nee nga d' nga. que mhm. jigéen bu nekk ci bu mu sëy war na mën am xarit yu góor. Mhm. ba pare nga indi si limite nga ni waxtaan bi wala soit doxa demalante ñuy dem. saa su ne war na mën a am donc limite. mais man je dis que euh, je peux être d' accord je peux ne pas d' accord aussi. pour lan soo dajee ak borom kër bu fiir. foofu loolu du mën a am. la day gis ñenn seet bu dugg si biir néegu seet dañuy changé seen numéro mhm. numéro téléphone yore dina leen piis yi donc loolu lay ñëw ci li nga xam ne si bi mooy côté firange wala mhm. pour se faire respecter wala genre de en quelque sorte mais man loolu tamit dama naa ñàkk wóolu sa bopp la ci côté ku ki mhm. parce que yow ku da nga dem ba ko nga ko yoon bu pour man xam sa soxna kan par la confiance va s'installer mais parfois la confiance boobu noonu du ñëpp ñoo koy am mhm. parce que dafa nekk loo xamante ni sëy dafa que lu discret mhm. dafa nekk lu discret sa jëkkër li mu bëgg mhm. danga siy dox parce que loolu la ñu wax si islam d'accord parce que bu ñu dal moom mooy kilifaam góor ki mooy kilifa mais tey léegi borom kër gi su d'accordul mhm. yow ku jigéen ki nekk ci bi néegu sëy nga am xarit yu góor kon réaction ku jigéen ki la la war a doon tey non loolu maanaam def loo xamante ni tey sa borom kër bëgg ko te loolu tooñ la d'accord ay eh, tooñ sa borom kër bëgg ko kon les femmes mariées yi nga xam ne yéen ñu suivre mhm. <laughs> da ñàkk ñi nga xam dañ ma du doigt da ñàkk ñom aussi tam né pointé du doigt sister Adam ça. Ah. Ah, man kay on est juste là pour causer avec ah, nos amis et les mhm, internautes trouver solution rek voilà on va essayer de mhm. trouver la mhm, solution tu vois adéquate

ne waa kii du sama xarit tapas ko. ku mhm. euh, ku góor ki wax ko wax joo xam ni un wax déplacé. en quelque mhm. sorte mais parfois góor ki maanaam li si dem ba gis boppam parce que mën na jàpp ni ku ku jigéen nga dafa ñàkk fayda. d'accord te alors que ne ndeysaan dafa dem ba miinante nit ki mooy loolu moo tax parfois daal. Mhm. mën nga xaritoo ku góor mais dafay am limite nga xam ne yow da nga am jëkkër wala sax mu wàññi xaritu góor yi gisoo loolu wàññi surtout mais wa warta bari ba man xarit bu góor benn wala ñaar nga si war a mën a am benn wala ñaar

maanaam mhm. mu nëpp nëppal ko ba dugg ci biir néegu sëy bi mhm. d'accord legi en plus ak ay xaritam léegi nga ni yow li nga cité mooy mën na am benn ba ñaar xarit yu góor surtout d'accord mhm. maintenant am na ay cas yoo xam ne si bii yaa ma doon soufflé talax benn cas boo xam ne si man dafa ma dafa ma xaw jaaxal daal xaw ma nag xam cas bu réel la <laughs> wala dafa fréquent am la kooku si boppam xaritu jëkkër ji lay jël di jël di envoyé message maanaam ay message yu doy waar des des vidéos pornographiques genre demee noonu. wala mi ngi noonu affaire ça tamit. Ah, dañu wax bu fekkee yow am nga jëkkër. war nga mën a xam ni ngay comporté woo kon réew mi toll foofu. moo tax parfois nii góor dina fiir te alors ni ku jigéen ki moom moo koy def. d'accord maanaam moo koy woon li tax góor di. góor di fiir mais góor di fiir si hasard loo xamante ni du dara tamit ni waxante dëgg. da fekk ni ku góor ku ku góor ki xam ne ku jigéen ki li muy def. man moo tax ma di koy jël di ko fiire am na très cher jeune am na lu ma jaaxal trop mu tiital ma trop Ciss Adams nee na ku jigéen ki dafa am eh, xaritu borom kër bi mu yónnee ay vidéo pornographie <laughs> c'est grave c'est loolu c'est grave mais léegi réew moo tas mais loolu yëpp da ko war a xeex d'accord parce que loolu après njaaloo lay indi c'est vrai te loolu baaxul d'accord moo tax yenn ñu góor yi bu day daa kon d'accord nga man que boo amee borom kër da war a changer numéro. surtout. d'accord bu fekkee sa borom kër bëgg na ko. parce que bu mun na xasee ba takk pour man loolu kooku moom nga war a def sa kilifa. donc juste question de waxtaan la question de trouver un pour mën a mm-hmm. euh, comment dire harmoniser atmosphère bi. Mm-hmm. question de waxtaan la maanaam war nga mën a changer wala déet wala war nga man a am benn ñaar xarit yu góor wala genre demee noonu. donc waxtaan ba jubóo la rek Mais nous, à mes très chers internautes de Cœur Guy Channel, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de liker surtout nos vidéos parce que ça vous permet carrément de voir les autres vidéos qui vont suivre, mais aussi les autres émissions et plein de surprises hein, qui vont s'enchaîner mm -hmm. dans Galsen euh, Cœur Guy Channel, Galsen Channel, c'est la même chose. Hein. Donc, ils connaissent que nous sommes tous ça sonne, ça sonne, nous sonne, ça sonne, Channel. Channel, vous êtes les maîtres. Hein. Mhm. abonné. -hmm. Vous êtes les maîtres. Mais si c'est mhm. une femme mariée, peut-être avant avoir des amis hommes Ngani ni la personne ou bien la femme peut avoir deux voilà euh, deux ba ñett xarit yu góor wala ben ba ñaar xarit yu man je je dirais que ça dépend ci ku góor ki nga nga question de waxtan la mhm. mais ba tay dima gëna gën a jaaxal mooy kii yónnee xaritu borom kërëm vidéo pornographique bi Lolu lolu dama ci def point d'exclamation wala mu def ci point d'interrogation parce kan que nekk na lu garaaw daal. léegi moo tax tey ñu góor yi d'accord ñu ko seen jabar am ay xarit yu góor. mi ngi noonu parce que dañuy dem ba ci biir xam na lan moo tax ñu koy bañ. d'accord parce que mën na dem ba teg sa bët sa jabar. te boo xefee da ngay ñàkk yow muy ko góor souvent cas de divorce ci Sénégal day d'accord ah là y a problème. il faut trouver une solution à ce problème là. parce que jigéen du fenn. nous lu mu le bëgg wala mu loo xamante ni dafa bëgg naturel. Hmm. da si dem ba jeex. maanaam da koy jaral. da koy jaral. d'accord quand divorce yi ngay yëg nii yëpp li am li tax mu am. mi ngi parce que xam ne lan moo tax parce que loolu c'est intérêt c'est nek. d'accord. jigéen du nekk foo xamante intérêt am nekk foo. maanaam moo xam tey lu mu manqué la moo xam lu mu manqué ci biir. surtout néegu sëy bi moo xam xaalis la wala matériel loolu truc ba tax surtout parfois yàlla mën na dimbali nga am sa jëkkër. dëgg la mais nga baal ma si kàddu doo ko sentir. d' accord maanaam des fois di nga am borom kër doo am yëg ci moom. Ah. ba tax ngay am yeneen xarit yu góor yoo xam ne dañ la jox yëg-yëg boobu noonu. surtout. <laughs> ah là il y' a problème dal donc Je euh, j'ai pas d'information. Ah. naturellement j'ai pas d'information ñi nga ni mmh. kër gi ne amul fé bonheur. Mmh. am ko rek. am ko non les gars c'est aram il faut nga xossi quoi il faut nga xossi lolou mi ngi ci biir réew mi. ba tay mi ngi fi jusqu'à présent. mi ngi ci réew mi. ba mi ngi fi. d'accord am jëkkër am far am xarit bu lay may fukk li ko war y' a problème hein?

loolu nak mooy dem par mais dans jigéen mais dans ce cas il faut que jigéen ki indi diine ah. le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tendance à dire euh, il faut toujours voir euh, le côté diine ci ko jigéen ki pour mën ko parce que je pense que diine mooy combler le vide. pour ne pas que instinct de la personne domine la personne en quelque sorte. donc mes très chers internautes euh, sister Adams thème bi nga xam la femme mariée peut-elle avoir des amis hommes waaye Régine ñu ngi ñuy signaler que ni temps bi mu ngi bëgg thème yi ñuy indi dafay nekk ay thèmes yu ah, yaatu dañ ciy mën a waxtaan fii moom fii bu nekk dina fi jaar vraiment si yow gars yi nañuy abonné rek di xaar yeneen di xaar yeneen thèmes yi parce que kër d'accord si c'est un nga grave. donc merci beaucoup d'avoir suivi cette émission thématique dans Keur Gui Channel la femme mariée peut-elle avoir des amis hommes vous qui êtes au niveau de la diaspora ou bien vous qui êtes au niveau du Sénégal di suivre émission n'oubliez pas de donner vos avis en commentaire nga joxe seen avis en commentaire dinañu aider aussi pour savoir exactement kenn ku ci ne li ngay nous négocier ou néegu sëy wala kenn ku ci merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, de remercier le caméraman l'international, ça me donne ça m'a c'est mon frère. c'est spécial à toi, Kaba l'international. Merci beaucoup. À la prochaine.